asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di ziare di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen ah, comme ni ngeen ko xamee nag di leen balu àq bu baax a baax leen wax ne nag gëj nañoo jàkkaarloo ci seen sidéya bi waaye balaa ma yëg dugg ci loolu di ca sori dama leen di bàyyi ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay yi liñ ñu indil tey ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 2 novembre 2021 dañ ñëw ak yëglikaay suñu làmb lañ koy dooreeti yëglikaay ba nag tey moom dafa xëy ñëw dikkal ñu ci combat boo xam ne daal Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar muy diggante Tapha tin ak nga xam ne moo di Boy Niang léegi nag leer na combat ba moom date bañ ko jàppoon ca lay am le 19 décembre moo tax yëglikaay ba nag xëy ñu wan ñu Boy Niang ma nga xam ne nii nag mooy càppaacoli ba nga xam ne moo nekk école de Boy Niang ak tafaatin la géant bi nga xam ne moo nekk fa nga xam ne moo di bawal mbooloo borom taq ci rib mel ne nag ñaari mbër yi moom seenu jàkkaarloo fi mu nekk nii daa mel ni nag kale nañ ko maanaam seenub face à face le 21 nofembre daal la ñu yëglikaay bi xamal ne ñoom ñaar danañu jàkkaarloo waxante maanaam boo sàggane mooy nekk seen wax yu mujj balaa arbitre du soufflé génn seen diggante ñu jëflante moo tax yëglikaay ba yemu ca ñëw na tamit ci loo xam ne wax nañ ko yëgal ñu ko ci ñaari mbër yooyu muy seet ay open press yëglikaay bi nee na jàppal le 2 décembre daal Boy Niang ca ca lay def open press am fa nga xam ne moo de ca pikin bu buñ ca jógee Tafatine la 9 décembre moom tamit dana def la nga xam ne moo di open press am mu mel ni ki daal bu bëggee dégg dëgg kon boobu combat fi mu nekk nii day ah mu ngay yoot di ñëw la ñaan nag mooy yegg ci ak jàmm am na combat boo xam ne nii daal bu bëggee dégg dëgg tamit mu ngay yoot di ñëw mois de mars nag la war a am muy diggante Modou Lo ak nga xam ne moom moo di Ama Baldé 13 mars daal la ñu yëgle kaay ba xëy tay xamal wan ñu lig Nicolas ma ko tëg di ñu xamal ne daal daal promotion wu ko ba fi mu nekk nii daal lig nag maanaam entamé la ko fas yéene def wala boog sax mu nga ca loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey wax am na koo xam ne moom da doon bëre ba bàyyi bëre ñu koy wooyee léegi ab ancien gloire mu mel ni kii nag maanaam retraite am daal mu ngi koy préparé ba tax na nag ab jubiléem jàpp na ko ca la nga xam ne nii daal moom moo di weeru février jàppal la 7 le 8 ba le 9 février daal la Xaadim Njaay fas yéenee def la nga xam ne moo di sibileem ci wàllum la nga xam ne moom moo di làmb ji yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu bu nu continuer leneen loo xam ne nii moom ci weekend bi la amoon muy làmbi dóor joo xam ne neexoon na ba yegg ca lool wala ay làmbi dóor moo xam te Cees la ba ci Ndakaaru bu dee Ndakaaru moom fi la ñuy njëkke la amoon arène nationale kere neexoon na ba yegg ci lool ndax stade ba nit ñi si nañ làmb ji animation ba bëri woon na la nga xam ne nii moo di mbër ya fecc nañu waykat ya way ñu bëri jël yu rëy am fa waaye bokk na ca jël bu rëy boo xam ne am na fa muy grand combat ba la nga xam ne nii daal moom la aada fas def ka nga xam ne moo di tafaa mbër mennam song daal la ko song combat ba jeex yëglikaay bi nee na nag boo bëggee dégg dëgg une minute daal la nu bëre waaye Mor Kànkang it foofu la jaarale boo yëmbal maanaam itam mennam song la ko song combat ba daal di fay jaare jeex waaye tamit ka nga xam ne nii daal moom moo di Ousmane Gandigal ca itam daal daa mel ni ah bu bëggee dégg dëgg daal wane na fa la nga xam ne nii moom moo di boppam moom Ousmane Gandigal digganteem ak ka nga xam ne nii daal moom moo doon Alaaji Gaynde fa xam ne moo doon ca Thiès combat ba nag ka ko tëggoon du kenn ku ka nga xam ne moom moo di Sidi Jaxate moo tax yëglikaay ba jàpp ne Ousmane Gandigal bés booba daal bu bëggee dégg moo gënoon a foor ka nga xam ne nii moom moo di jàppal Alaaji Gaynde moo tax it daan kola def beneen combat boo xam ne nii moom ñoom ñaar daan teegunu waaye jot nañu avance maanaam encaissé agsi nanu muy Youssou Ndour doomi Balla Gaye numéro un dëkk ca géeja way ak ka nga xam ne moom moo di jàppal caatu yof dëkk ca yof combat ba daal waa bool production muy Assane Ndiaye moom moo ko taxawal yëglikaay ba xëy na tey ñëw dina ko wax beneen combat boo xam ne tamit taxaw na kaka taxawal moo di Jax muy Serigne Ndiaye numéro deux ma ngeen xam mu nekk écurie Fass Ndakaaru ak Cobra ma ngeen xam mu nekk fa nga xam ne moom moo di ca Pikine yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu am na keneen koo xam ne nii moom maanaam ab journéem la ñu jëm mu ngi koy waaj muy Baba Diaw borom càmm production mu dox ci diggante double mateur ak ka nga xam ne moo di Quench dimanche ji nu jëm daal fa nga xam ne moo di ca arène nationale lay am di la set leneen loo xam ne dan cay jeexale yéeglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb muy làmbi simple ji ñaari mbër yoo xam ne daal weekend bi moom seen affaire baax na ca lool ka ca jëkk moom moo di ki nga xam ne moo di ngañ seen ñaari tournoi daal la gagné boo bëggee dégg-dëgg daal njoos moon la gagné ñu ne ko fa ngay yem mu jàll ñëw ba terrain gaal gi gagné lañ fa tegoon kenn koo xam ne nii moom boo bëggee dégg-dëgg bu dee gëj naa neex la ci làmbi simple ji tamit daa mel ni nag defaru na ba jekk ba ñëwaat moo tax weekend bi itam wane na ci boppam lool muy Cheikh Tidiane ñaa bu ñoojoor Cheikh daal ñaari galaa moom tamit dajale na ko def ci poosam jàppal yëglikaay bi ne na yéen la jëkke jël 3 millions ya nga xam ne moom la fa Yaxya Jóob Yékini tegoon yemu ca ba mu fa jógee daa takkaat ngembam wuti palmarin lañ fa tegoon tamit mu jël ko moo tax yëglikaay bi jàpp na Cheikh Tidiane ñaa ñëwaat na ak doole moom Cheikh Tidiane daal loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey wax ci moom nu fa jógee record la ñuy dem jeexal la fa yëglikaay ba nag xëy na xam ne daal diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur soog ba nga xam ne daal moo amoon soog dee bat booy daal la ko ko yëgle kaay ba tudde waaye daa mel ni daal seeniwu phase bi daal yàggul ak xaleem fu nga xam ne moo di Tapha la ñu bëre bariwul yëgle ba daal ne na une minute quarante la ñu bëre aada phase jaay ko yëfi seeni daan ko jëlli bu daal di ñibbi phase mel ni kon balde loolu moo fi amoon ca la nga xam ne moo di bi waaye ku yebu daal na nga waaj dimanche le 7 novembre arène nationale Baba Diaw mooy tëgg Quench ak double moteur jërë ngeen jëf kon mbokk yi dégg ngeen yëglikaay yi tey moo xam sunu làmb la moo xam record la ku ci nekk li nga indi ci làmb comme ni ma leen ko waxee nag di leen jéglu baax baax xaw nañu gëj a gisante ci wàllum sidéa bi depuis àjjuma li ko waraloon mooy samedi bi comme du am dimanche bi ñu yoon làmb ja liggéey ñu ko démb tamit nekkoon feet journaux génnul loolu moo tax mais tey nag dikkaat nañu comme di mardi di le 2 novembre ah 2021 Ah, dama leen di ñaanal jàmm rek yéen ñi nga xam ne tamit yéen ñi ngi ñuy topp di ñu suivre di commenter suñu ay vidéo moo xam di ko aimer yéen ñëpp amuñu seen fay yàlla na yàlla fay di wax ne nag ah yëglikaay yi sunu làmb leen kay doore yëglikaay bi xëtam mu njëkk la ca gën a fay la ca gën fës bokk na ci gis ngeen ko noonu takk ci rib tafaatin bu bawal càppaaculi booy ñang bu pikin ñoom ñaar nag léegi leer na seen combat te defe naa ne d'ici quelque temps wala d'ici donc astaghfirullah maanaam quelque temps sax day yàgg mais d'ici quelques heures di ngeen gis Pape Thialis Faye ma tëgg combat ba combat leer na ñoom ñaar seen face à face bu njëkk le 21 novembre lay am seen open press sax yëglikaay bi ñëw na ci maanaam le 2 décembre Boy Niang day def open press am le 9 décembre Tapha Tine def Pape Thialis Faye di ngeen ko gis ci Equivox TV dëkk naa ko micro moom wax na ca combat ba ak itam léegi date bi leer na muy le 19 décembre li ñuy ñaan di yàlla mooy fekke ko te tal ko moom laay continuer di ko ci wax rek euh, Pape Thialis Faye comme li may wax rek am na benn moment bi muy ñëw ci làmb defe naa boobu ah euh, wax dëgg yàlla waa làmb soxla woon nañu ku mel ni moom mu ñëw ndax bi mu ñëwee am na combat yu bëri yu mu tëggoon bokkoon na si Diène Kaïré Marley bokkoon na si Bombardier Eumeu Sène ak raison yi Forza Abdou Diouf doon tëgg ay mbapat kon ñëwoon boobu amoon na solo jamono ji mu doon ñëw ba tey mu continuer ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu def mu réussir ko ba mën a defaat yeneen journée parce tamit jot nañoo liggéey ak moom te itam wax dëgg yàlla nit ku baax la loolu lañ xam si moom yaa ngi dégg waaw loolu lañ xam si moom ñuy ñaan yàlla daal combat bi ñu fekke ko te tal ko hmm, Boy Niang Tapha Tine xam naa nag lu la waaye mën a wax mooy combat bu doy waar la combat Tapha Tine Boy Niang te xalaat naa ni itam jël ba cay am dana rëy lool comme ni ma ko waxoon bërki dem ci Mor Kankang bu yëmbal jël bu rëy xalaat naa mu am ci xalaat naa mu am fa waaw xalaat naa kuñ ciy daan ci ñoom ñaar sa jël des na ko waxtaane lu yàgg a yàgg yàgg bu ñu continuer beneen combat boo xam ne tamit ba mu taxawee yàgg na léegi nag date ba ne nañ le treize mars la muy mut Lo ak ki nga xam ne moom moo di Ama Balde Luc Nicolaï ne nañ mu ngi entamé li nga xam ne wàllu promotion combat bi la gis ngeen ko noonu Luc Nicolaï ah waaw il est l'heure xam naa ne comme lu ma si ñaan tamit laay ñaan rek yàlla na ko eggaleeg jàmm moom Luc parce que tamit bés la boo xam ne nii wax dëgg yàlla macha allah ah euh, ñëpp a ngi koy xaar muy tafa muy muy Boy Niang euh, déggal ma ne Boy Niang sax muy Ama ak ki nga xam ne moom moo di euh, Modou Xarañ Lo le roi des arènes ak sa lu bu ndaw borom Pikine muy combat boo xam ne tamit ku yebu xaar xam ne ah mois de mars sori na soreetul yàlla nañ ko fekkate tal ko rek parce que olof ne na looy bañ mu yegg si bul ko wutalub daat loolu mooy ci nekk loolu mooy coow li keneen koo xam ne moom dafa newoon ci làmb daan bëre ba bàyyi xaarim Ndiaye xam ngeen ko dafa naa ne jamono ñoom tafaa gi Lac de Guiers Tyson Yékini génération boobu la mu wane boppam lu bare bare nekkoon jàmbaar am fit lool mën a xeex lool mën a bëre lool nekkoon écrit Mermoz daan ànd ak ñoom Kamal ma daan ko fekk ca corniche bële ci sumbi jun daan fa benn moment après nag mu quitté fa doog dem caaro yi muy koo xam ne vraiment marqué na empreinte am ci làmb tey nag bu bàyyee làmb dem ba war a organiser jubiléem le 7 le 8 le 9 février ah dañ koy ñaanal yàlla retraite bi yàlla na dàq carrière bi xaadim nit ku baax la car dafa jël téléphone am wooma ñu waxtaan lu yàgg kon loolu am na solo trop leneen loo xam ne tamit dafa amoon nag dañ ciy ñëw ci weekend bi muy ay làmb yu yëngutu woon muy fi nga xam ne moo di Iba Mar Diop gis ngeen Ada Fass noonu ci kaw Tapha Mbeur waaye gis ngeen tamit Ousmane Gandigal noonu mu taxaw moom itam mu mel ni sali la jóge wala boog Gandigal dem Thiès fekk fa Aladji Gaynde waaye arène national lafa am ker ah Fallou Ndiaye mention spéciale lañ koy wax wala noonu ñu naan élèves yi mention très bien xaw ma très bien loo ci mën a dégg daal mention moom baax na moom Fallou ndax nag vraiment euh, kera tooñ na Assane Ndiaye wala ne ma sax Babacar ma ne ko mu ne mooy journée bi Assane tëggee Général Malick ak Fils de Balla mu ne ma làmb dimanche bii ñëw lay ubbi di le 31 octobre waaye nag daa mel ni ah la mu waxoon amina am na parce que nag boo xoolee la nekkoon kër arène nationale bëgg na tëgg làmb jooju ma rooloon nga bàyyi ko wala nga bàyyi woon ko fa da nga def erreur bu nganda nganda moo tax ñu déplacé ko ñoom waa Njaay production yóbbu woon ko arène nationale mais vraiment macha allah ëpp ëpp xale ya indi nañu mbooloo làmb ja animé na amateur yi ñëw na combat yi yegg na ah ah non mais Ada Fass nañ ko bàyyi xel digganteem ak Tapha Mbeur nag dafa am lu ma ci seetlu woon te am na loo xam ne xëy na bon boo ko waxee ñu ne nangam sangam mais li ma ci seetlu woon mooy fraîcheur physique bi ma demee ci ñaari open press ñaari mbir dama gis ne fraîcheur physique bi Ada Fass di dégager gisuma ko ci Tapha Mbeur wax dëgg yàlla noppalu daa mel ni Ada Fass a gën a noppalu moo gën a nekk ci combat bi man loolu laa gis ci open press Ada Fass ba ni mu bëree ba ni mu daane noonu la continuer ba daan làmb ji dafa mbër nag xaw ma ban problème la am waaye war na xolat bu baax a baax côté dal bi dallu bi entraînement bi xaw ma mais y a problème ah. bés nag boo ci ñëwee war a da ngay daanu moroomam a ko daan xale boo xam ne xale la ni moom parce que problème bi mooy boo xoolee ñoom ñaar dóor dóor bi ñu doon wax euh, dañ ko njëkkante bi ñu ko njëkkante jàpp nag Adama ku ne xam na ne mbiru mbappat la bi mu jàppee moom negu fa di xaar midi wala une heure dafa jàpp rek taf ko mu tëdd làmb ja jeex kon félicitation waa Fass di courage waa Parcelles loolu mooy sport leneen loo xam tamit Thiès googu la amee woon Ousmane Gandigal ngeen gis nu ko moom tamit la mu la mu defoon teg Alaaji Gaynde mu mel ni ki nag moom Ousmane Gandigal daal boo bëggee dégg dëgg moom ah Thiès daal yëg li kay bi moom daal bés boobu moo gënoon a for Alaaji Gaynde ah mu mel ni Ousmane Gandigal la ma waxoon fii rek mag mu jar a bàyyi xel yàgg naa dëppi xale mën naa xeex mën naa bëree te boo ko gisee yaakaar ne entraîné wul da ngay nax sa bopp bis bu ngeen séqii bés mën nga amee jafe-jafe te loolu la nekkee xale yi kon xale bu ciy jël na nga pare bu wóor a wóor a moom Ousmane Gandigal ndax lu defantekat la lu leer laa leen di wax leneen loo xam ne nag taxaw na muy combat bu neex Baol Production ko taxawal gis ngeen ko noonu Youssou Ndour école de Balla Gaye di yi Balla Gaye ndem si yàlla sel na ko yàlla yërëm Balla gay ak ki nga xam ne moom moo di caatu yoof ñoom ñaar la Assane Ndiaye boole Assane nag moom itam nee bokk na ci promoteur yi nga xam ne xam nañ li war a ànd ñu di ko boole ci làmb te loolu dafa neex ci làmb parce que ñoom ñaari mbër yi boo xoolee ci euh, bébé julde lañ mujje moom lañ mujje daan ku ci ne daan ko euh, Youssou Ndour moo ko mujj moo ko mujj daan Ibamar Thiar Yoff mujj ko daan arène nationale Assane Ndiaye jël leen boole leen léegi nag ñu il faut ñu daje pour mën a ràkkati ko ñu xam kuy dem ak kan mooy tax waaye combat bu neex la Assane tëgg am na yeneen combat yoo xam ne taxawalaat na ko moom Assane Ndiaye waaw gis na adversaire Assane am lu am solo suma confrère bi wax ko jiili bu wasaare ma koy nuyu di ko si du nuyu waa wasaare na ci Ada Fass Tapha Mbeur daa jàpp ne kii di Ada Fass dafa pièce Tapha Mbeur waa lamb naxante xel la te Mohamed Ndao Tyson noonu intelligence en mouvement la ku la gën a yow moo la ko dàq def bëri yow gi da cee baax bu arbitre soufflé il faut nga utiliser sa xel parce que du xeexu mbedd kon jili sa jàng boobu am na solo loolu ci biir journal bi nga xam ne moo di sunu làmb bu nu continuer ba tey lit simple bi tamit yëngul noonu ci weekend bi ndax fa nga xam ne moo di njoos moon gaal gi ka fa teg tànk moom moo di ngañ seen di xale bu jara bàyyi xel gàmbi laa ko gise woon laa ko découvrir man ca mbappatam fàllu njaay bi muy xale bu jara bàyyi xel ngañ seen mi dëkk ca sama côté dëkk yee dëkk yu ñuy wax Fissel Mbadane zone yooyu la dëkk waaw muy xale boo xam ne bu ama am avenir u la macha allah kenn koo xam ne moom retouram moom la defaat retour boo xam ne nag retour retour en force la defaat muy Cheikh Tidiane Niang borom jof yor Cheikh ku ne gis na ne bi mu ren bi saison bi ubbee bi mu ñëwee premier mbappat bi mu njëkk a mooy bi Jax si tëggoon dafa ñàkk waaw daa ñàkk ñu daan ko quart de finale moom Boy Faye waaye nag dem na defaru jiwaat ñëw bi mu dikkaate nag ñaari galaala boole jël yéen yi ki ne fa tegoon 3 millions moo ko jël moom samedi ñu ne déet ne waaye palmarin itam moo ko gagné moom Cheikh Tidiane Niang muy xale boo xam ne tamit yaakaar naa loolu moom bettul kenn ci làmb Cheikh Tidiane gagné na galaa du lu bett kenn ci làmb waaye beneen combat boo xam tamit balaa ñuy génn foofu Jax taxawal na ko ngeen gis ko noonu muy Cobra numéro 2 ak Serigne Ndiaye numéro 2 muy ñaari numéro 2 kii nekk Pikine kii nekk Fass Ndakaaru muy lu nar a neex loolu moo fi dikkoon tey ci yëgle kaay muy record di sunu làmb ah dina wax ne nag am na feneen yoo xam ne na ko xaar te wax ne double euh, double moteur def na démb la nga xam ne moo di open press am Quench incha allahu rabbi moom day def jeudi ca bari ñi loolu tamit na ngeen ko xaar ñu jëmaat ci fi weekend boo xam ne weekend de lay doon ndax combat ya nga xam ne moom la Baba Diaw boole dina neex Quench double mateur waaye la nga xam ne moo di tee max ak brise de mer numéro rek dafa doy loolu rek doy na saa nga indi nag la ca topp muy Queens ak double kon daal gars yi nañ préparé waat pour dimanche yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye drapeau chef de tamit ku ne xam ne ne day wala boog CEDEAO bi day commencé à partir de alxames lay commencé fii ci Dakar nag lañ ko organisé équipe yi ñu ngi ñëw macha allah équipe yëpp ñu war participer ay Niger ak Nigeria ak Côte d'Ivoire ak Gambie ñëpp ñu ngi ñëw ñu war a ko nag drapeau CEDEAO bi nag ñuy ñaan suñu équipe jël ko nag Sénégal nag tànn nañu seen ay ba pare maanaam ñi ñu war a représenté foofu juróom la ñu waaw bu bëggee dégg dëgg sunu 66 kilos Moussa Faye la sunu 76 kilos Ngor Ñaax la waaye sunu 86 kilos Asu Nduur la di Gànja Faama di doomu Bitenti waaw 100 kilos ba du fay ordinateur bu ñaaxar moo fa ne 120 kilos ba du Bousso di Boy fay ngeen xam ko moo fa ne ndax naa xam nga Boy Faye loolu mooy équipe bu Sénégal ñoom ñoo ñu war a défendre couleur nationale bi ci semaine weekend bi nu jëm jeudi vendredi samedi dimanche noonu lay demee yàlla nañ ko gagné ak jàmm. waaw loolu daal mooy ñaan gi di wax gaa yi que ni nag loolu daal mooy li nga xam ne tey moo fi dikkoon waaye di remercier koo xam ne suma nit la te royukaay laa ko def te dama koy wax chaque jour te ñu bëri war nañ ko di bàyyi xel rawatina mbëri muy Mohamed Ndao Tyson kooku hélas dem dañoo waxtaan lu yaato yaatoo yaatu kooku nit ku baax la Tyson Mohamed ndaw yàlla na sa jàmm yàgg di la nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla sa société yooyu nga xam ne installé nga ko ñu yëngut ci wàllum pétrole ak leneen ak leneen yàlla na yàlla teg loxo waaye lépp lu doomu adama taxawal lu ne yàlla na yàlla teg loxo loolu nag li koy may lenn dong la hélas moo di ab yar gis nga ab yar ku la ko ëppale moo la gën a muus muus bokk na ci yaru joxe cër di wax ak nit ñi humilité wàcce sa bopp dafa am solo si doomu aadama waaye maa réew nu ma neex waxe nu ma neex kiwe du yëfi nit yoral ay milliards kenn du la faale yorale milliards kenn du la lijjanti ak say milliards nit ñi bala nga leen a jaay loolu lu leen saf rek nga leen a bi yar ak i teggin bu ko defee noo mën a mel dinañ mën a nekk ak yow parce que nag el àddina yàggul guddul kon dal gi baax na humilité bi baax na wàcce sa bopp ndax nag ak lakk bu buñ ne daw leen néeg baa ngay lakk hélas ah xam nga lu ñuy sobeem la gën a oyof yére yaa yàq yooyu waaye aw xeer ab mool nga fekk ko fa ak lakk nga ne da koy génne yow boo sàggane da nga lakkati moom loolu moo tax diis baaxul rëy kenn nag ko yeyoo mooy subhaanahu nit doomu aadama day wàcce boppam yaa ngi dégg kon yàlla nañ ko yàlla defal ci sama bopp nag laa koy commencé humilité daa baax ba suba incha allahu rabbi